asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen nuyu di leen ziyaara bu baax di leen dalal seen chaîne YouTube bi nekk benn maxtaar xam naa incha allahu taala suba moo ñu dese pour secret yi leen war a jox pour leer a taxal diggante yi ñu jublu si rek luy neexal diggante yi te diggante mën naa xam ne bu neexee rek jàmm fu mu am rek xéwal dafay wàcc mbëggeel dafay nekk salaam dafay ne kon nag euh, maa ngi leen di ñaanal ginnaaw bu ma leen joxee ay secret itam maa ngi leen di ñaanal jàmm yàlla di ko def si yéen yàlla di ko def seen njaboot yàlla di ko def seen bërëbu liggéeykaay yàlla di ko def fépp waaw ndaxte loolu euh, tumaranke na maanaam jafe na si jamono ji sëy yu si gën a bëri daanaka neexut diggante yu gën a bëri neexut moo xam ay mag a moo xam ay patron patron ak ki muy liggéeyal ak ki koy liggéeyal moo xam tam ku ne bëri na daal moo tax daal incha allah ñu fas yéene di jox ay secret yi ngeen mën a def seen diggante yi pour yàlla di ko mën a rattaxal incha allah yàlla nag mooy mottali mooy dogal yal yàlla dogal lépp yal yàlla itam faccen aajo yi képp ku fi nekk di ñu déglu dañu seetaan rek moo xam mu feebar moo xam mu ne si ay xat-xat moo xam lu mu mënti bëgg rek yal yàlla fajal ko ko si loo xam ne nekkul mooy yàlla daal incha allah waaw kon nag tey bu soobee yàlla secret bi laa leen bëgg a expliquer muy bu am solo lool te baax waaye itam ngeen def ko nam si lu neex yàlla comme ni ma leen ko faral di waxee rek na nekk farata képp kuy jug daal pour def leen na farata man nag def naa samay ñaan képp kuy jug di def samay secret yi may joxe si YouTube bi te jublu si lu bon yàlla bu sa aaju faju te itam lépp loo si def mu nekk lu safaan wallahi du ko gis kon nag maa leen di conseillé di leen digal lépp lu ngeen fi def rek na nekk lu baax maanaam euh, euh, sabab bi daal nekk sa sabab bu baax kon mi ngi nii mooy. su fekkee ne da nga bëgg nekk sa soxna wala sa borom kër wala ki nga bëggantee daal ak ku mënti doon ngeen bëgg seen diggante neex la tax eh, nga bëgg kooku am mbëggeel si yow day def waal xeeton aleyka mahabbatan min nii dégg nga nga koy def sept fois da nga koy ëf si ndox nag mais saa boo waxee waal xeeton aleyka mahabbatan min nii da nga siy teg turu nit ki dégg nga ba mat sept fois nga ëpp ko si ndox mi jox ko mu naan wala mu wala ataaya wala yu demee noonu bu fekkee ne jot la da nga ko da nga koy wax sa loxo ndey ndeyjoor bi nga wax ko pendant sept fois mais saa boo ko waxee rek euh, su boobaa da ngay da ngay wax turu turu turu nit ki dégg nga après nga nga wax ko sept fois ci sa loxo ndeyjoor nga ëf ko si bu ko defee nga nuyu ko dégg nga beneen bi si topp muy amin da ngay jël nga bind baatu amin amin so mim bi laa yaatal boo yaatalee mim bi da ngay bind yow sa tur si kaw bind ki nga bëgg turam si suuf ñu jàkkaarloo après nga tëj mim bi jël loolu lem ko ba mu nekk bu ndaw nga sëf ko fi diis euh, bi si topp bi si suuf nii itam moom sa kër yi nag bu si nekk secret boppam la bokkuñ bi si suuf nii itam moom da ngay bind yaawa dudd vingt bu bindee yaawa dudd vingt fois premier waaw bi da nga koy yaatal def sa tur deuxième way bi nga def si turu ki nga bëgg nu nga koy bamtoo di ko bamtoo ba vingt def ci xorom ba mu saf sàpp nga chaque jour zikr écran 832 832 voilà le zikr vous pouvez le faire pendant 9 jours inshallah donc euh, maa ngi jéem di leen jox dig wa rahmatullah.